Nafisatu dangaa mënul xool li ngay togg sa tata bi mu fi ñëwee ba tey régime alimentaire am dafa yàqu dangay jàpp togg bi kaani ko ba kenn du ko mën a lekk su reeree tey bu subaa du reer pour lan loolu. mais maman nag maman nag neexul ba neexul mais dama sonn je n'en peux plus bi chaque jour à ses nouveaux problèmes moom bu tayee mu ne sama estomac bi bu subaa mu ne sama gastrique bi léegi man fu ma jëm ah? basta gis nga li mu bëgg loolu moo fi am. nga togg lu mu mën a lekk. mais ma moom avant mu fi doon ñëw man maa daan togg. après te chaque jour dañuy lekk te kenn du wax mais ba mu fi ñëwee ba tey kenn xamul lu kër gi di ndiroo bu yewoo suba moom daal mu ngi mel ni kuy def casting man ndax sama aawa doom ji nàngam bu tayee bu subaa mu dem ci ñaareel bi te moom dafa war a xam ni. doomu jàmbur bu nekkee sa kër danga ko war a téye fonk ko. je t'arrête. gis nga bu casting lay def casting am baax na te moo tay nekkul kër jàmbur li mu wax dëgg la mës a gis ñaari wujju yu jiboo di nuróolee darab di otesu di def lu leen saf pour lan loolu ak am nag ma parfois di nga dugg ci kër yoo xamante ni di nga dugg ba génn doo mës gis ñuy xiiroo ak ngaayoo te doo mës a xam ni am nañu fay waaye ndaw yow de yaay sama maam awaloo segam yow mii di gone gu ndaw yaa mën a gis loo xamante ne man mii sa ndey mosuma koo gis wax nga dëgg loolu gis nga foo ko gis dañuy tricher posone seen jëkkër ray ko mu dee ñu séddoo alal bi seen goro di taxawaalu tu t'entends parler xam nga lu ma lay xamal quand je te parle tu te tais tu ne peux mal éduqué yow dangaa fuy xamoo lu ma la bëgg a wax rek li ma la wax na nanga ko bañ a def xool Mais moi, je rêve ou quoi Ça mais elle est pas eu koor gi da não dund ci biir néeg bi rek eu la nga ragal koor ah mais koor dafa metti de mm-hmm. lekkoon naa loolu dafa metti yaa ragal koor ci Eu não waxuma loolu ana say bi waaw ñoom nag dañu génnoon quoi tàggu nañ ba génn mm. daa am fu ñu fu ñu jëm quoi Yaudah dua-duanya kira-kira fotografi. Tindak la. sëñ jubóo bi njubóo. waaw mais nit dafa war a sant yàlla. nga yor ñaari soxna ñu jubóo nekk benn loolu kay ku ko am waxatoo dara. foofu nga defee erreur nag nga def erreur bu sama dong lañ am am ci te duma la seetaan nag ngay dugg ci ay tooxi doona gis nga mag ñi dañ naan ñaari soxna yu juboo erreur la boo yoree ñaari jabar bul nangu ñu juboo boo ñëwee si kii ruumat demal ci ki ruumat ndax boo juboo buñ juboowee rek yaa ngi ci erreur ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo te gis nga leen ñu ngi génn guddi ñu ngi génn bëccëg da ngay xool seen visage rek nga xam ne dañoo ñeme sëriñ yow la joxe nga lekk la joxe nga naan lu dangereux bi ci gën metti nag mooy ber buñ lay beral la rek ngay lekk rek nekk ci dëndër ci tàngal mbir mi de yàqu ma nag sa xel wala bëgg rek te yàlla tax yow loolu lañ fi dese te buñ la ñàkkee dañu yow sax doo doro waaye ñu la yàqu sa xel banyak wul ma duma làmbal foofu dara yomb taw yor na ma ne ma yoroo dañ ci yow de kontaan naa ci bu noir laal sa faaraas di rëdd sa kanam saf. ñaw ana aaw. xaw nag bouger mba sori wul non non bouger bu gatt sûrement lek ma ñu macha allah ndax li ma la bëgg wax ma lako ndax toogaay bi ma yow jagg na ko bëgg ndax ñaarel borom ñaari reer bax rafet tay mëna sañsé ci la ko xam yow duggu ci kër gi kër gi di delu ginnaw da nga duggu ci kër gi kër gi di avancer di leer di belli kër guy belli mës nga koo gis ba nga duggee ci kër gi la kër gi commencé belli macha allah gis nga yow lii sa ndeyu ko liggéey sa kër baay mu topp la ba fii lajor mbi wee wéji may sa biigi kumba sëy daan ngañ ma kumba ndaw mbala xelal ko mu jëjëm ma la ku la demel la lajor càmbiñoo jale ma ca lambu dis wa ma nga daara njàqum di nelaw jiiri ngone maa samba kulima ci singa ndat ma faali kumba na ma tax ba bala deg fukki barak loo ci xamul géer yee tandaat ak géwél yee tandaat koo ci woo mu yoo maalaw be sàmba keroog bi fii mujj dama fee way way wi nga xamante ni xale yi dan maa dab naan ma géwél juum nga géwél juum nga géwél juum nga man leen dinaa defaraat way wa ñu ne ma géwél noo koy defaree man leen dama naan bi ko duggee ci kër gi ba léegi si siri dama bees foo fekk ñaareel xamel ni xaritu jëkkër ja lay doon giisal gisal ñaareel il est dalla ñaareel il est mignon <laughs> bi la yéen yéen a mel noonu yéen ñee ñaareel borom ñaari reer yi xaritu jëkkëram ndeysaan ah, ah? mën naa macha allah macha allah macha allah moom léegi mu ñëw ah ah ma ne xam naa léegi mu ñëw waa tey nag awa yëkkatiwuma yow ñaareel yaa mu yëkkati ba tax na bi may génn kër ga dama ni xalé na dem ci bikitu bàyyi gayne tala gayne mhm. lu fa rafa tay ma rek ñu jël ko ndax xam naa ne su tedd ah kon waro nga ko fay fekk nak mom wala ya ma yëkëti tay ñaarël bo bëgg dig dig fi ma tok ni sama poste bi fukki dërëm nekku ci mané yi kon tay sa bëss la sha allah wa wa wa wa xamna naa tey sama bëss la de <laughs> su ma ñëwee mu neex ay su suma ñëwee mu neex way ba tax na dal fi mu toll nii boo bëggee dëgg-dëgg mm donc la lawa may ma yóbbu ngéwal loo may loo may lawa may ma yóbbu ngéwal. dama yorul deureum nak si ci bi lay bina setan rek ndeysaan yelo yow yaay ni di la di ko xamanteni yow kenn xamut ban façon din nga. yow ban façon ay waay ñàkki mbokk ci sunu kër gi ñàkk ci dimbaluñ kër gi ko xamanteni da ngay wër di wëndeelu fu na nga dugg fa te li ngay wax dama maîtriser wu ko ci. yow lan moy sa problème. sa problème. dañu melni groupe nit lu mu doon. ana groupe nit ma sañ ko ma yéen daal ku sañse ngeen bañ a gis. yow lan moy sa problème. sañse. lu ko ci kër jambour yi di sos di wax lo xamanteni ni saw yoon nekku ci li ngay xamul ci dara. ya may tifli de. way xam nga naan ya may tifli. yaa may tifli fi ne tembe ni ci weeru ko nit ñi waajal ndox. nit ñi son wax deug yalla xana mo yërëm sa bopp nga yërëm kii ngay waxal. sama yonne ko ci. do toog sa kër. ci weeru koor lan ne heure bi tembe ku ne ne duju sa kër toog ngay dugg ci kër jàmbar yi di lambar lambar yi lii yow mbaa sa jàmm la te man li ma jaaxal yow maami jàmbur yi ngay ngay jaawale aw ak ñaareel xanaa dañoo dugalante ay maam. sama ngañ ñi ne ko ci de. jëriñu sa ndaama maa law be sàmbaak yow li ngay wax xamoo ci dara. sama ngañ ñi ne ko ci li ngay wax xamoo ci dara. gis nga nag maa ngi lay lemtu booy. koy boobu ma waxati booy de. maa ngi lay lem. mais mais mais du ma la dumale ci kër gi de. yow taxawal rek man. man

tabax baa ngi nii ngeen nekk fa. man xeexuma eh, ci bati bi. man xeexuma ko maa la ko ñaan may ma ko. sama kudd gi jàmm na ràcc. yow da nga am kudd yow leer na na la yow. bu doon danoo daje ci mbedd. naa la dóor dóor yoo xamante ni. eh loolu dama sori yéex la. eh génnal. eh eh eh sa yoon ne ko ci maanaam. sa verre yi sa verre yi. pampi bopp yi. <laughs> yow kii dama jaaxal. yéen da ngay kii kii leer na ma ñu def xaalis. teyoo lee la yoroon kii kay kii kii moo bon. Eh. kii du dara nii lay def di yàq deru géwél yi. Mhm. ah fi ne nag fi ne nii tembe nii tembe tey boo xamul danga naan kon géwél yi nii lañ def. te ay nopp la naa. Mhm. gis nga ñoom géwél yi waxuma kii di dem de waxuma xarmee di dem de géwél yi laa wax mhm. ay nopp la. ndax way na la way woo xamante ni daam ko way daam xal la man mi damay dajeeg moom programme ba may way lu neex dama koy bàttali ñooñu hmm. ay géwél lañ hmm. c'est la ngéwélisation hmm. ah c'est la ngéwélisation ah mu ni c'est la ngéwéli kii ay kii la rek du ay français yoo xamante ni dafa disponible pour ma wax ko nii